waaye nag bu ñu nomee meilleur lutteur kon yeneen xale yi ñu doon tudd yëpp ay kirikook ay ñang mm. ay ñeneen ak ñeneen am na ci ñoo xamante ni bu ñu leen doon nomee meilleur espoir mm. mun nañ cee génn ndax xale yi nga dégg yëpp ñu def exploit ci ci saison bi ren diggante deux mille vingt trois deux vingt quatre ñoom te tudd ñu leen kon ci meilleur espoir yi la ñuy bokk. Mm. ba tey ñu ngi xaar ñu nomee ki nga xamante ne mooy meilleur espoir. mais gars yi balaa ñoo juum. ndax meilleur meilleur lutteur bi moom génn na. Mm-hmm. c' est le roi des arènes parce que moom moo livré deux combats ci cinquante deux jours. Mm-hmm. macha allah am ci deux victoires teg chronom deux fois mu nekk en jeu léegi dañuy ñëw ci meilleur espoir yi. Mm-hmm. meilleur espoir yi tey bu ñu ko doon nommé dafa am ñoo xamante ni dañuy génn. numéro un bi yaakaar naa ne bu ñu juumul dañuy wax prince la ñuy wax. prince lan moo tax mu nekk numéro un. waaw parce que li tax mu nekk numéro un mooy xale bi nga xam ne phénomène la. génn biir Pikine ginnaaw raay kenn ku ne xam jambar ne production ñoo ko mujjee tëgg 19 novembre. di saison bi door a ubbi ci ouverture saison. boole koog tubaabu Dior junior mu daan ko. ba mu fa jógee Gaston production dañ ko jox 4 février digganteem ak yan bu mu daan ko. ba mu fa jógee Gaston production dañ ko jox 28 avril digganteem ak xale bi nga xam ne mooy Oligens di combat piège combat bu métti si moom mu daan Oligens. ba mu fa jógee 28 juillet ñu jox ko ki ngaan mooy Jokel mu daan Jokel avec 4 combats. quatre victoires de révélation génn ñu boole kook Gaston production boole kook kilifa gu ko war a jox oto te bu ma jumu sax jot na ci boole kook aussi tamit kilifa goo xamante bi ni sponsor Gaston production la jox nañ ko terrain ba livré nañ ko ko moom ak ménager am ak kiyam kon nag presse ah macha ba pare di duy estaat waaye xale bi waay ah lii loolu. ni ngay waxee Gaston production da jiili nag kaay ma wax la ah, affaire de nominé yii rek moo ma jaaxal. mais bu fekkee ne maire promoteur ci Moodu Anta lay jógee. ah <laughs> ça va foo ne. Ah. Eh. macha léegi loolu am na solo. ba tey wax naa la. boo ñëwee rek ñëwal ci livré na temps de combat am temps de victoire ñu ñëw. ñang baalo lim combat yi par belle ak belle léegi ñang baalo dañ dem boo génn deuxième position moom macha allah ñaata combat la am. ñang baalo am na trois combats trois victoires mi ngi nekk fii ci Ikri Dóor Dóoraa di xale bu dëkk fii biir Cambérène di espoir nag. Hmm. génn fi kan? macha allah. Kan? ñang baalo boo dee xool daan na euh, Mathia Pereira. Ibo bu Kër Mbay Fall. 29 octobre. daan Mathia Pereira. xam nga gars yi doo mën a lim yëpp daan safara aussi. waaw daan na trois combats kay loolu laa bëgg léegi kon ñang mbaalo génnee na ci li ñu wax parce que prince moo am quatre combats quatre mm. victoires léegi ñang mbaalo bu amee trois combats trois victoires deuxième position lay génnee mm. mais que ca topp Bib Diop la ñu wax Bib Diop ñaata la di bëri na trois combats trois victoires waaw bëri trois combats trois victoires parce que tamit daan na ki nga xamante bi ni mooy euh, xale ba bébé garga bu école de lutte Balla Gaye mm. daan na aussi tamit xale bi nga xamante bi ni mooy ardo daan na aussi tamit naaru sokaas dernier combat kon Bib Diop faaw mu bokk ci espoir yi quoi. Mhm. waaw faaw mu bokk ci nomination espoir yi quoi. macha allah ci espoir yi ba tey ki waral coow li ko jox te moom Modou Mbaye nee na moom mooy jël meilleur lutteur Kirikou ñaata combat la euh, def trois victoires même bu ñuy nommé meilleur espoir bu jëlu cinquième position day jël quatrième. trois combats yi waaw cinquième c'est normal jaadu na quoi. Mhm. jaadu na parce que bokkut ak ñee quoi ñii ma am na ñu ci rëcc ci ay spécial. Mhm. te moom mosul génne spécial mais champion la parce que daan na booy sila ci décembre bi daan na ki nga xamante bi mooy papa bari bari daan na ki nga xamante bi ni mooy ardo quoi kon macha allah kiriku moom waaw ça va ba tey ñu ngi ñëw ci meilleur espoir yi ba tey kii di fils de Kati moom it ñaata combat la bëre saison bi waaw fils de Kati tamit bëri na trois combats trois victoires parce que ci ndoorteelu saison bi ci la daan abooy bi mu jógee si abooy ci la ci la mujjee daan caatu def trois combats tamit trois victoires. Hmm. fils de Kati. Hmm. fils moom it septième ko sixième la génn. Hmm. septième la génn moom moom ban position la ne. waaw moom tamit champion la ci la bokk parce que boo dee xool dernier combat am gis nga ko mu daan caatu jokkul am yeneen combat yu mu def daan xale bi nga xamante bi ne mooy nu mu tuddati aljuma lawbe daan ay champion yu bëree bëri ren def na 4 combats 4 victoire beneen combat bi nag mi ngi ko bëree fële ca Bambay mooy làmbu petit production bi grand combat quoi ci la daan aaju Malawbe mooy fils de BM. fils de BM 4 combats 4 victoire ci espoir yi la bokk. macha allah hmm. bi mu ngi génne euh, huitième bi mu ngi génnee ci Sey Jàmbaar. Sey Jàmbaar moom ci espoir yi daa mel ni pour espoir yi espoir yi métti na trop parce que booy yi ku ci nekk lu waay wàqi sa morom suuf. dafa chatiré. Hmm. doom la ci suñu papa père Ibou Diouf doom la ci Modou Xarañ Lo moo war a bëre ci euh, tournoi bi nga xam moom la Gaston production tëgg premier janvier muy say jàmbaar moom ren def na quatre combats quatre combats yi nag boo gisee li nga xamante bi nii mooy da cee am euh, euh, erreur mooy jël bi nga xam ne internet daan na ko par recours parce que ca biir géew ba chute dafa am arbitre bi sible ñu dem xool ñëw bëriwaat sëy daan ko internet dem def recours ñu jox ko victoire bi kon sëy am na 4 ren am na 3 victoire am benn défaite parce que daan na ci Pape maam daan na ci ki nga xam mooy daan na ci ki nga xamante bi ni mooy euh, Armé Dieye internet daan na ko ci kon day am 4 combats 3 victoire benn défaite. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw ton Siteu tamit champion la boo dee xool ren def na trois combats trois victoires hmm. dernier combat rek seetaan ko digganteem ak Boy Waalo hmm. bu bos ku saw mu gagné ko par abandon da koo dóor mu dem ardo mënatul dellu si avant loolu aussi tamit am na beneen victoire bu mu amoon ci biir loolu tamit Ousseynou Laye tëgg na ko mu daan ki nga xam mooy Modou Fëgg la hmm. kon am na trois combats trois victoires di xale boo xam ne mi ngi dëkk fee si Géejawaay moo tax na ñoo xam ne ñi ngi seetaan sax bu ñuy wax dañ naan mais ñii mbër yi xam fan lañ dëkk ñii ñuy wax bu ñu ñu footoo xamuñu leen booy ay champion lañ moo tax gis nga làmb sa nit mën na laa gën a jàng fuuf mais da nga koy gën a xam parce que xam paasewul ngay toog di wax te yoroo big ak fooy comprendre nga xale yii dañu bokk ci làmb est-ce que da ngaa gis tey émission bii nii tey am na ñooñ buñ la ko defaloon duñ la génne première première espoir ba dixième espoir kenn ku ne ñu ne la lii la bëre lii la bëre du am kon Tonn Siteu champion la mi ngi ci yoon bi 3 combat 3 moom moom day génn fi nga xamante ne mooy neuvième laa koy def mais dañuy ñëw ci Zil Dieng. Zil Dieng waaw Zil Dieng. numéro 2 waaw moom macha allah moom dixième lay génn moom foo koy yóbbu yow. waaw parce que champion la. Zil Dieng ren def na 4 combats def 3 victoire benn défaite parce que dernier combat sax dafa daanu. loolu rek moo ko xaw a saboote. Lagros 2 moo ko daan dernier combat am loolu aussi tamit. gis nga ko mu daan ki nga xamante bi ni mooy Ama bu Yoff daan ay champion yu bëree bëri wax dëgg yàlla moom tamit di champion boo xamante bi nii nañ ko bàyyi xel parce que ci combat Ndiaye Tine 2022 xaw ma 2023 la dugg ci làmb combat ak ki nga xam mooy Giro Seras xam nga yàggul mhm. ren lay doo ko daanu macha allah muy xale boo xamante bi nii espoir la biir waaye gunaas googu nañ ko bàyyi xel Jules ah. Diène numéro 2 ren mu def 4 combats am ci 3 victoires am ci benn défaite mhm. Mhm. léegi nag ki nga xamante ne moom moo ju mooy fils de Sow Gueye. fils waaw moom mi ngi dëkk fii ci parcelle unité bu ma juumul. Hmm. moom champion la aussi tamit ren def na moom tamit 3 combats 3 victoires parce que daan na dal seen kaw daan na booy bii dëkk fii nii dama koy fàtte. Hmm. booy bu luur bii xaw ma yaa nan. 3 combats la def 3 victoires dernier combat mi ngi daan ki nga xam mooy Bouba. Hmm. pas Bouba top 5 nag beneen Bouba bi quoi ren def na 3 combats 3 victoires fils de Sogé mi ngi dëkk fii parcelle. Mhm, moom hmm. dixième dafa am benn xale boo xamante ne lim naa ñëpp te mënumaa lim ba bàyyi te duma ko lim muy ki nga xamante ne mooy Tony Junior Tony Junior moom fan lay nekk ci espoir yi. waaw Tony Junior parce que ren boo dee xool bu ma juumul benn combat la bëri. jàmbaar bi ñu ko tëggee moo kan la woon. jàmbaar tëgg nañ ko boole koog euh, booy be. mbaytin mbaytin waaw. mais mais mais loolu du saison bi. du bii de Tony benn combat la def benn victoire ren Potilo moo def deux combats deux victoire hmm. Bouba deux combats deux victoire Potilo Tony benn combat la def ren benn combat la hmm. kese parce que bul fàtte ne mbaytin ci Tony la jóge dëgg la nag moo mujjee daan mbaytin ci làmbu jàmbaar Potilo ren livré na deux combats deux victoire hmm. daan na ki nga xamante bi ni mooy Tony daan ki nga xamante bi ni mooy xale bee mbaytin numéro de mhm. buubaa aussi tamit ren livré na de combats xam nga nag ku am trois combats trois victoire mënta am yem ak ku am deux combats deux victoire mhm. buubaa daan na ki nga xamante bi ni mooy kii euh, soq bu ndaw mhm. avant soq bu ndaw daan na ki nga xam non abu njaase deux boobu yàgg na boobu yàgg boobu yàgg na waaw boobu yàgg na avant daan na ki nga mooy mooy mooy mooy Lat Joor waaw moom la jàmbaar tëggoon waa hmm. deux combats moom tamit deux victoires macha allah mu nekk loo xamante ni mbokk yi dañu koy wax rek pour wane ni meilleur espoir yi bari na hmm. te saturé na te am na ñun te am na ñeneen ñoo xamante ni tey ñu bindal ci ku ci nekk dina bind ne ñu diw ak diw ak diw mais loolu dañu bëgg a wane ni rek hmm. làmb mu ngi def jéego jëm ci kanam mais rawatina xale yi nga xamante ni ñu ngi wane seen bopp ñi ngay dégg nii ñëpp ñu leen di lim am na ñoo xam ne bu ñu leen limee dañu naan mais ñii ñooy ñan mais ñii fan lañ dëkk te fekk ñooñu ci ëllëgu làmb yi ci la ñu bokk tey bu ñu demee ba tudd ñi nga xamante ni mooy meilleur lutteur yi jël ki nga xamante ni mooy Pokola Balde mm-hmm. boole ko ci catégorie Modou mooy wane ni mu ngi def ay jéego mm-hmm. kon jël aada Fass boole ko ci maire yooyu mm-hmm. ñoom ñu ngi def jéego mais ñoom ñaar ñooñu tamit ko il temps ñoom it ñu xoolaat seen bopp xam ñoom ñooy ñan xam lan la ñuy jar ci làmb xam lan la ñuy peser ci làmb xam ni làmb du folo waaye ku daanu rus làmb mbiru jom la mbiru garmi la ngiru fulla la mbiru fayda la mais yooyu yëpp boo koy def dafa laaj nga am xel mu sell mooy li ñu naan un esprit sain dans un corps sain maanaam làmb képp ku koy def sa xel sa xalaat sa lépp dafa war a sell parce que koo xamante ne boo déparé xale yu bari bu ñu nee dañu loo bëgg mel ni yow kon boo génnee war xale bu leen gis war nañ laa mën a roy waaye ana diw ñu naan mu ngi ko fekk ci ay boîte de nuit ana diw ñu ngi koy fekk ci bërëb ana ay diw ñu ngi koy fekk ci kaso ñu ngi lay ñaana intervention suba ak ngoon guddeeg bëccëg yooyu rafetul ci doomu gor xoolaat leen seen taxawaay bu baax a baax a baax xam ni làmb di ngeen cee war a lekk ay millions mm. sponsor yi nga xamante ne Mouhamed Ndao Tyson daf ko perte ci làmb di ko méttit lu ba tey yéen xale yi da ngeen ko war a dem jëli sponsor yi nga xamante ne làmb dañoo jàpp ni waru ñoo mën a ñëwaat yéen xale yi da ngeen leen war a indi. Mm. làmb dafa am fu ñu leen di xaar. Mm. mais du fii lañ leen di xaar muy Pokola muy aada Fass muy yeneen xale yi nga xamante ni ñu ngi def yu mel noonu te siiwagul jëmagul kaw. Mm. ngeen teel a la parce que moo daan ñun xam nañ ci lu baree baree bari xam nañ ci lu baree baree bare des fois xam rek dañuy feeñ kenn day feeñ mooy li ma naan kër ga day toj pitaxi naaw ñëpp mun cee jot mais xale yi nañ xoolaat bu baax a baax taxawaay bi mm. yow it macha allah nga góor góorlu takk ñaareel ndax jabar dañ koy def <laughs> yow de doo añ tey <laughs> yow tey doo añ de yow teg takk ñaareel non loolu bu jotee yomb rek mais essant yi ku sax faatee mokkul jiilu doo songu saar man li ma nekk mënuma ci dara booy yan la. ñu wax ci aada faas ah non booy yooyu moom sa waay mënoo cee wax yi lu ci keneen waxul. Mm. isa xamali ma la wax. chaque jour dañ ciy wax bu yàggee day nuru soof walla leneen parce que booy gënuñu fi dàquñu fee bëree dàquñu fee xeex ëffuñu fi mbooloo ñoo fi mujjee ñëw. ñun gis nañ fi bàcc seeraas mm. ñun gis nañ fi Siteu mm. ñun gis nañ fi keneen ak keneen gis nañ fi ñoom Boy Bawal gis nañ fi ñoom Marley 2 ca bañ cay toll gis nañ fi ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen comprendre am na loo xamante bi ne sa waay muy Pokola Balde mii Pokola Balde bu xëyee rek wala mu dugg ci këram kër Falaay mm. jàddu góos dugg néeg maire Kumba Balde mm. mu xool néeg bi mm. macha allah ni mu xatee xool bagage yu bëri yi ah Pokola war naa toog yedd boppam xam ne maire bi fii non kër famille la mais man dama laa war a génne yóbbu la ca kër gu mag. ak ci baraak def ko étage. muy nijaayam di Ama Balde. xam nga kooku bu yaafuusan ba tey ña nga dëkk ca baraag ba kon ñoom buñ xoolee ci Ama Baldé rek ñoo juum te déggoo ko ci boîte déggoo ko ci affaire de mu déggoo ko ci yeneen boo xoolee sa nijaay Ama Baldé rek ba tey kenn déggu ko ci dara ba ni mu jëlee kër papam def ko jëlee ko ci baraag yóbbu ko ci étage non da jël foofu exemple beneen bi ci topp sa yaay mi ngi si biir kër gi macha allah di maire bu baax sëy ba sëy fu dara nekkul nga mm. xam nga tey yow waroo ñëw lu dul soutenir ki nga xamante bi ni mooy sa yaay nga jàppale ko ni nga koy jàppalee yaa ngi bëre Pokola fii mu toll di fayeeku benn som bi ba fa Ama Baldé di toll xam nga mm-hmm. fayeekul yeneen som yi mm-hmm. comprendre na mm-hmm. kon nag instant yi nii il fallait tey moom mu jéem a taxaw xam ne moom dafa jàppale daa war a jàppale maire bi génne ko ci kër gi yóbbu ko ci beneen kër mu toxu fa loolu nag li koy def mooy mu génn ci yi mu nekk Pokola mën naa bëre mën naa xeex am na fit amut ak tiitukaay léegi lan moo des conneries yi mu nekk na ci génn mu jéem a dem bëre ci te xam na am na combat bu rëy te mois de janvier lay bëre wallahi ku ko fekkul fa mu nekk nga ne ko demal entraîner ji parce que ki ngay bëreel dof la ba demul dikkul déggoo ko ci tous mi ngi entraîner parce que mer la fanaanoo Pokola mm-hmm. na ku ko fekkul fa mu nekk na ko booy kaay nga dem entraîner ji parce que amoon na bis lii mu nekk nii tey bu daanee talfa coow daam de mais ay bu ko talfa daanee mbamb dina ko topp ba ilaa yawmi diin te carrière am lu ci bëri mën na cee sooxe. Hmm. waaw bu dee beneen côté bi aada moom mooy li ñuy wax rek dafa am cër ci làmb mais est-ce que cër bi mu am ci làmb xam na ko dafa am lu mu war a saisir ci làmb mais est-ce que mi ngi koy saisir non non saisirul dara parce que aada dafa am mille sens pour am sponsor boo xamante bi nii da koy fay cinquante millions wala trente millions wala vingt millions te du bëre du xeex du damm du entraîner du dem ardo duñ ko yóbbu ardo du gaañe duñ ko gaañ. Hmm. loolu lan koy maye image am na image bi lan moo koy maye mu denc image am bul dem ci foo xamante dañ la fay gis di la xeeb bul dem ci ay boîte de nii bul dem ci ay yeneen béréb yoo xamante ku la fa gis du la respecté dangay denc sa image ngay ne parce que saa boo nee dama ne ñi la àndal ñëpp ne ah da ngay duy stade balaa 18 heures a jot côté bi ñu la jox da koy duy ba mu lang kon nag kooku il est temps ñu récupérer la am nga staff de mais est-ce yaa ngi leen di déglu am nga staff mais est leen lay wax yaa ngi koy jëfe la nga toog booy. yow avenir u làmb nga seen secteur boobu noonu 97 ba léegi aada roi des arènes la ñuy wër mënuñu koo daj am nañ mbër bu nekk andi nañ ku nekk am na ay révélation yu bëri yu fa nekk am na ay xale yu fa nekk dàq la bëre sut la ëpp la doole mais cër bi yow la ko suñu borom jox millions yu bëri yi macha allah yaa koy fayeku te yéene nañ la ko mais lan moo des doo fonk sa bopp nga entraîné man nga bëre am nga fit am nga code de popularité nit ñi bëgg nañ la lan moo des denc sa bopp entraîné kese lii yomb na Ada Fass succès day jeex succès day jeex jiilu du dara passe temps la benn temps boo xamante bi ni après da ngay isolé wu keneen ñëw at mu nekk ak ka cay génn heure bi daaw bu si tala woon Laurent Ndiago la woon ren Amath Dia la hmm. kon il fallait que mu rectifier yow dellu si waat balaa ëllëg ci heure bi ñu koy waxaat fekk mu am ay terrain am yeneen ak yeneen hmm. kañ ngay tàggoo waaw waaw tàggoo bi moom waaj la 24 hmm. novembre rek ah. incha allah drapeau suñu papa père ba ah. ñing koy waajal bu baax borom ndar ak azani Assainies en tout cas dal fi ni jili rendez-vous ben la le 24 novembre jarul tok di wax bu kenn wax kenn dara kenn ku nek na xey gaddu sa caméra séti fo aw le 24 novembre bi saturé na trop té dégg na nak sidi dugg du bari dé kon bu yabo ngeen teel ah ku ci liggéeyu do dugg yéna ngi ni di ma du ngén fëkk caméra ceddo la nga naa may lan Mansour la ilaha illallah Mansour dafa garaaw de gars yi di leen sant bu di leen gërëm jili di leen jox di jaay dig daje ba beneen yoon incha allahu rabbi mbokk yi dégg ngeen Modou Anta li mu wax loolu yëpp boo gisee ñuy waxtaan da xam ne ñaar ñuy waxtaan yabante nañ miinante nañu moo tax liggéey bi des fois du ñàkk nga dugal ci sax ay ruubeeg yu mel noonu mais macha allah bu waxee nga xam ni yàlla suñu borom dafa am lu muy may nit defal ko nit mooy histoire lamb képp koo mën a wax ni diw kañ ak kañ ak kañ liñ bëre mu daan te mën na laa jox bis bi jox la dat bi jox la ñan ak ñan ak ñan ñoo ci bëre loolu nag macha allah yàlla suñu borom moo koy jagleel nit <coughs> mbokk ñu koy jaajëfal bu baax di jaajëfal képp koo xamante ne ci njabootu làmb nga bokk ak soxna Mati di leen jaajëfal bu baax a baax a baax moom bàyyi Serigne Saliou Mati leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf.